àll bi léeb la bu ñu bindee ci kàllaamay kocc ñu di ko wax itam ci kàllaamay kocc ndaw yi teewlu amuñu benn jafe-jafe ngir comprendre ko collection la boo xam ne ñu ngi ci dajale ay léeb yoo xam ne mënees nañ koo jëfandikoo ci école yi loolee bokk ci projet bi ñu duppee léebalma ay collection la yu ñu jébbal école primaire yi lu ñu ci bëgg mooy gën a suqali suñuy kàllaama. kii bi programme bii ni def nañu thème générosité ak nekkin ne nañuy dund dundinu àddina ni ñuy nekkante ah bañ a saaga parce que gis ngeen léegi Sénégal nu mu nu mu bare il faut ñu jàngal xale yi ne leen violence bokk valeur. dañu amoon ay valeur ay identité yoo xamee ni il faut que ñu indiwaat xale yi si loolu loolu nag ñu indi à travers les contes et les récits bis bi nga xam ne àddina wërgal këpp mi ngi ko jagleel la làkk gi nga xam ne moom nga nàmp tey jii olof bi nag moo daal di xewle waaye bu ñu ci noppee projet bi dina yegg ci suñu yeneen i kàllaamay réew dañ koy tasaare si langue yëpp bu ñu amoon moyen si langue yëpp nañ koy def vingt cinq langues du Sénégal pour le moment là ngi leen di gërëm bu baax début du projet moom nañu def wolof kese ak pulaar dañ koy bëgg def si six langues yi mais dañu bëgg tasaare même def ko si yeneen cinq langues yi bi ñëw ni ñu ngi def si vie et œuvre de Cheikh Anta Diop bi koy ki koy ki sax moom mooy doomu Cheikh Anta Diop si boppam vie et œuvre de Cheikh Anta Diop ñu wan ay xale xale il faut ñu xam lan mooy suñu identité ñan ñoo fi nekk comme nit personne de valeur sooy wax ak nit ci kàllaama gi mu dégg yaa ngi wax ak xelam waaye soo waxee ak moom ci kàllaama ga mu nàmp yaa ngi wax ak xolam loole la Nelson Mandela waxoon. na di daw fu nekk mu jëm fa ndax mbégte tëb dal cëpp cëppi tëb.